asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan fii ci 2STV ni ko faral di defee at bu ne ren tamit nag ñëwaat nañu fii ci Paroumba ngir dëttal leen gàmmu bi nga xam ne moom la ñuy faral di def boobak léegi toll ci juróom-ñaari at ni ngeen ko gisee nag gàmmu bi dey dalal nit ñu bari jóge fu ne ci biir Sénégal ak réew yu ñu wër Gambie senegal ak Guinée Bissau gàmmu bi nag ñu fàtte nekk ñu koy amal rek ngir màggal juddut yonent Mohamed sallallahu alayhi musidɓe daroɓe men ɗo e 2 tv nomin kammani ɗum wadde ni hikka kadi min garti ɗo e parumba parumba noon ko noon gandi hikka waɗi duuɓi jeɗɗi waɗa oɗo gammu mbiyen tan ɗo no jiroto ni yimɓeɓe ina gimmo to woɗɗi e nder sénégal ha he leyɗe ɓaariɗe hen ɗe guine bisawo gambi oɗo noon mbiyen tan ɓe kammani ɗum wadde tan koppirma o nde jibinande nelaɗo mouhammed sallallahu alayhi wa

Yeah.

délégation bi ko àndal ñu ci le maire de la commune le chef de poste frontalier de la police de Dialadian ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di masawoo coono eh, ci bés bi ñu ngi dalal dalal général de Damantan ak délégation bi ko àndal fa tabaarakallaahu at bu jot euh, mu ngi ci suñu diggante di defante ak ñun du ñu ñaanal di ñu ñaanal ndax gamu bi jëm kanam et ndax commune de jëm kanam ndax Sénégal jëm kanam ñu ngi koy gërëm di ko ziar di ko masawo coono ndax déplacement bi Tamba ba fii fa tabarakallahu métti na kon gàcce ngaalaama xalif général de Damankan ñu ngi lay gërëm di la ndokkeel euh, chef religieux yi maanaam imam yi ñu ngi leen di dalal ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay mais aussi chef coutumier yi chef euh, euh, borom aada yi ñu ngi leen di dalal ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi te yi nga xam ne ñoo jóge ci réew mi ñi Kolda tàmba Tamba ñi Ziguinchor ñi Dakar ak fu waay mun a euh, jóge ci biir dëkk bi ñu ngi lay dalal ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sargal ci bés bi délégation également yi jógee bitim réew comme Guinée Bissau Guinée Conakry ak fu waay mën a jóge ci weer yi ci ci ci wee dëkku euh, euh, bitim réew ñu ngi lay dalal ci gàmmu bi ñu ngi lay sargal ñu ngi lay ndokkeel ci gàmmu bi ñu ngi lay masawoo coono ndax kat eh, euh, déplacement yi euh, métti na ñu ngi gërëm ñëpp fàttewuñu kenn euh, ji góor jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn euh, imam ratib ne ma eh, naa gërëm dëkk bi ci seen takku parce que boobu ba tey eh, ñooy jóg a jóg daanu te ndax organisation bi mën a dem ci kanam imam ne ma naa gërëm jigéen ñi parce que ñoom kat am nañu taxawaay ci gamu bi kon euh, loolu moo nekkoon kaddu bi nga xamee ne eh, dañ koy jotale euh, nit yi ci ci ci ci njëlbeen euh, bu ñu jógee loolu ñu fàttali rek gamu guddi yonante bi sallallahu alayhi wa la guddi boo xam ne euh, euh, juddu yonent bi lañ ci wax euh, dund yonent bi lañuy wax dundun yonent bi moom moom lañuy wax ci guddi bi donc sopp na ci ñii di zikr ñii di jàng alxuraan ñii di jaamu yàlla loolu daal moo nekk farata faraba gamu euh, li ñu fi dajal tey bi ñu leen doon rek euh, fàttali comme ni ko alxuraan waxe fa zakir inna fa ati zikare dañu fàttali rek parce que yéen loo loolu yëpp ñun xam nañ ko euh, bu jógee foofu wax nañ sànq ci discours bi affaire u élection yi élection yi ñu ngi sargal sous de la de l'annoncement moom mi nga xam ne moo ko organisé au niveau local yàlla def ne euh, benn problème amul et ba mu dem ci jàmm kon ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi koy sargal ci organisation bi mu ko wax ama euh, amoon na sax ay divergence ay rëq diggante candidat yi mais yëpp mun nañ ko surmonter ba daal dañoo war a booloo liggéey liggéey dém bi daal population yi ñu mën a gis ci seen bopp loolu daal mu ak nag loo xamoon ne loolu laay sani euh, ci autorité locale yi nga xam ne ñoom la ñu élire euh, fa jógee euh, am nañu ay doléance yoo xam ne ay doléance yoo xam ne yàgg nañ ko Euh, ñaan muy affaire ndox parce que euh, commune bi benn forage amu ko kon nekk na ci nekk na yoon quand ñu ñaan loolu ci autorité administrative yi pour ñu mën ñu cee japale pour que euh, commune bi foo dem rek nga am ndox bu boo xam ne ndoxu robinet la ndox boo am ne ndox bu sell la kooku doléance boo xam ne Eh, yàgg nañ ko fi ñaan ñu ngi koy encore euh, réitérer euh, autorité administrative yi bu fa jógee euh, affaire électrification ama gouvernement bi am na ay jéego yi muy def parce que mu ngi samp ay poto pour mais li may ñaan autorité administrative yi mooy dëkk bu nekk ak fu ak nu mu mën te sori ci biir euh, euh, commune bi poto yi dem ba foofu pour que ñun vraiment ñu mun a euh, dund dund boo xam ne ñi nekk taax yi ak ñun du ñu leen envier dara. kon loolu daal ñaan nañ ko autorité locale yi bu jëlee foofu bu jógee foofu yoon bi également dañ ko doon toujours ñaan. pour yoon bi dem ba jala jaan parce que yoon bi eh, maarwela euh, caafara la jóge mais paromba la yem donc fii ak saare mandu kacilati ba jala yoon bi def war a egg loolu nag dañ koy ñaan vraiment autorité administrative yi li la jëlee également euh, ba jubantan ba ba ba foofu aussi war nañ ko defar pour daal benn problème de déplacement euh, dootul am ci ci ci ci ci ci commune euh, bu jógee foofu euh, imam nee na naa remercier jëpp ku fi ñëw kon imam nee na muy gërëm ñëpp ku fi ñëw góor jigéen mag ak ndaw nga jóge ci réew mi wala nga jóg ci biti réew mi imaam nee maa ngi lay gërëm di la sant fàttewul kenn kenn kenn fàttewul kenn mu ngi gis ñëpp aussi fàttewul kenn ci ci ci ci ci ci ci euh, mu ngi euh, remercier également mu ngi gërëm euh, li nga xam ne mooy comité d'organisation muy xale yi yu dëkk yi takku. dëgg bi takku pour vraiment organisation bi mun na nekk organisation bu baax gëmm bi ñu mën ko def ci vraiment ci anam yu xamee ne ay mucc ayib yi kon imam nee na daal naa leen gërëm bu baax a baax yéen comité d'organisation yi. Euh, di gërëm également euh, dëkku Paroumba yëpp ak ñoo xam ne daal seen doole def nañ ko ci gàmmu bi. seen alal def nañ ko ci gamo bi seen doole def nañ ko ci gamo bi imaam nee na mu ngi gërëm ñëpp lii la jëlee population Paroumba ak population commune bi yëpp koo xam ne daal vraiment def nga ci sa sa alal def nga ci sa doole def nga ci sa lépp imaam nee na mu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, fàttewul mu ne ma gërëm spécialement euh, daayira jigéen yi fi nekk parce que dëgg-dëgg daayira yooyu euh, seen taxawaay ci gamu bi gamu commencé ba tey seen taxawaay bi taxu mucc ayib la kon imam nee na naa leen gërëm bu baax a naa leen gërëm bu baax a baax fàttewul kenn ci gërëm yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu merci alhamdulillahi rabbil الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الصلاة والسلام على سيد الخلق الصلاة والسلام على رسولنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما e alhamdulillahi rabbil alamin pali wonkoɗa nga kiila mouhammad sallllahu alayhi wa sallama kiila mouhammadu koɗan ko o ŋirima won katimin nabiina wa imamil mursalina e o ŋi annabi mo fetta fettu ɓen feka safiŋe ɓaro ŋiro cayelo se feka ɓeɗɗe min wo so ngi roccayino se wiidama roccayno wayna ko ñiñaaji se ɓe ñaaki se riyaɓe fof par ce que nin ka sabuye kiila koɗan kon ka fuuno duniya nin ka sabuye kiila koɗan kon ka fuuno aljanna nin ka kurɓe konan kiila ka fuuno kumbuɗo gonga asaman sen ka kumbuɗo gumɓe e eh, banke to sen e paƴene tole mawlude nabiil moustapha sallllahu alayhi wa sallama kila yankone faw banke mum ɓen ɗum ni faye mawlude sen to rijariya papponga fakkam awa ɓari nin sampun ɗum ni kod bondirene den hanin gasa moƴƴotin yonan mawludi ndine yakka bonkadi en e koɗan ka kiila sallallah alayhi wa sallama kala ko huttulose duwa o ŋiite gori o koɗan ko yimmande kiilamelle sallallah alayhi wa sallama laysa l islahu illa bi du'au wa sadakati ma narawoti ko nafa bon a fo ka duwa e nga ka sanne sada adui kuna matabia mwanangu eh kila sallallahu alaihi wasallama ah. yimmende ma gombe misilime sen watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu pajene to sen misali an mbongu wutisi am ɓe fop pakka wo pakkan ko nganu ɓen ko ngamu ɓen arabi koɗa masosa mbake koɗa ngakila sen o juuse kanname kan o ñirkoɗa ko juum ka soose baraji sen par ce que sabiye kanname kan arabi koɗama sosa ɗum e eh, mañan ɗo gomɓe misilme sen bo cabirio fe sappe diina bo kabuye innamal muminina ikwatu fa aslihu bayna ahraykum in kuntum laallakum turhamuna e nin cabiri boniyoom ri boniyonom diina sen pakkar nirɓe ƴettinto kandoyankal mo sugo mbo e, mbeer mo nganyo bo caɓon diyonan kandoye wiyara fanan ni sugo mbo nganyo bo caɓon diyonan e ɗe maari yo koɗan nden nga hinandeya e koɗan kon nga mayrene e koɗan kon ni yiccenima bon kala o janɗo bon koɗan kon koɗan mi caɓe won duwa senne aɗa bi koɗan mo caɓe ono e ɓe kala se alqouran se e eh, ukara mumen ni jeeri fetteede ɗum alkurana sen to yampitoode gon ɓen jaman ni yakkas gon fe kadume e jaman kalawteɗi yo fekkone jaman ni a karan sen ɗo mo gi juuse kayakke feppano ku a arabi kuranmade raabo e marmasere man tumara sara e miɗo salmina caggal nde mi salmini allah e nuraɗo allah sallllahu alayhi wa minen salmina e allah sallallah alayhi wa sallam caggal ɗum min yetti allah min yettiri allah sabu hannde oɗo jemma e ñamminngol jemma nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa ko yawti ko ko woni jibinande nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa nden ɗon jibinande ko woni ko min ñamminta ko ɗum woni e mawninde ko woni ko min teddinta nunaaɗo allah saaɗo teddina jema makko ko ɗum foɗa fuɗɗerode ko ɗum woni alqurana o jangge hay suko gooto yimɓe ɓe nana jannguɓe ɓe yo allah yoɓɓe baraji demgal maɓɓe ɓe yo allah waɗanɓe ñande janngo aljanna ɓe jannga tawa annaba aduna o fof no dari heɓe laara ɓe yo allah reeɗo ayna meɗen tori oɗo mawnude ko ɓe nan ɗum ko dewal allah e jokkere enɗal e jokkere diina islam e diinal islam o na wonirde eɗen fof wonen ndere goto mbaɗo ah, sabuna hannde so eɗen fof en woni ndede goto mbaɗo goto si en rewi allah en tawi allah allah yurmude en o faamo e moƴƴere yo allah faamo e moƴƴere e haala ka wawata juude ɓurta caggal ɗum miɗo salfina kala gokoɓe men andinde men alqurana o haamen hewti hannde haamen lowande alimami mbeɗen salmina jinnaɓe men jibinɓe men ɓe haa ɓe wawimen yaafade ɓe hokkira men ɓe janngoya diina l' islamu yo allah yoɓɓe baraji maɓɓe e diina ko heddi ko wonɓe he leydi yo allah reydo ayna ɓe e yeeso amen halifaɓe aada e laamu ngu yo allah ɓoyna si ɗum yawti none almami arɗo ɗo wawatake innede mbiɗo salmina mbiɗo jaraɓe mbiɗo duwanoɓe meɗen tori duwaw none seerenɓe arde ɗo mbiɗo salminaɓe mbiɗo jaraɓe mbiɗo duwanoɓe meɗen toroɓe duwaw ko debbo e gorko noon kala julɓe hawruɓe meɗen toliɓe meɗen duwanoɓe meɗen jaraɓe meɗen salminaɓe meɗen toroɓe duwaw ha joni minen ko duwa minen tono toon duwawu min duwanen ka saare ga ko ɗum woni mi wino mi holla jama o alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala seydina mouhammad wa ala ali seydina mouhammad wa arhama mouhammad wala ali mouhammad كما صليت ورحمة وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الله moy mon salmina kala julɓe garɗo ɗo onon jama mum naata maɓɓe on noon jiwɗaɓe ɗo pito to tamanto an ɓe gari naata kalifo la le kaŋ ko kalifo o immini ɓe to haa ɓe gara ɓe tawi o ɗo gombo naata kalifo la yamaroo ko on noon woni ko immini ɓe e yamirore mum ɓe gari min dantela kalifo na yamaroo kaŋ kala ko hen ɓe ɗo ko inde halifa o don to ɗumantan on sina sina fita kalifo ma nara jumba anin jama be mboyo ɓe jontima han men fankulli kañe ɓe ɓurde e julɓe ɓe fof alammaɓe balya a manka sawote angal makko argolu oɗo gammo hikka ana hen wondema beleɗe ala bala makuya be fana yewo moyle ko ɓannuɗo ran a waɗi ha jolgol oro ha ɗo ɗi woɗɗi mo tawino mo immin ɓe ɗo eh, nin wato mansi a mansi si watto yona tan yonani bara sasata de kono noon mo wondi e nawnare bare alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina ya ficatala fan fan o wattuɓe alhamdulillah rabbil alamina ayen temin dokol nin dimbal nin talibol bilanam o imminaɓe talibeɓe e miñiraɓe ɓe gaari pour ɓe tawi ganama ɓe aye ñum ɓe ɗo ɓe tawane yemo maɓɓe kamɓe ɓe goni a fate fongle bije ko makko wonto sa wasele non ɗo ɓe famine ɗum a komana ñala ko woni ɓawa makko woni yeeso makko ko ɗum waɗi ha ɓe juɗɗi o ɓo ari ɗo ñande siyala ñintile ɓe ɓe tawno noon ɓurde hewde ɗo kono noon yaami ni ya arano musilmeya mbo wiyoyo wongonmi juutɗo ɓe telli musilme ala ñin sifa ɗonneɗa enen fof ko ɗum wara e renndinde yaada ko musilmuol ɓe mo naatiɗum fatimine mboy sa yi yama julɓe pi ko nene gooro e baaba gooro mamo yafude ala banto kono mbo wowal mami o haali ɗum ɗa fabbulli innamal mumnina efowa mbo am uske surhamuna ina so laari alqur'an o kono nde ko ɗum woni ɗon to alqur'an ɗum wani ɗon to alqur'an mbanano taka haɗo haali ɗum de e maari o daara muyanda walla ko baɓɓe ene mbi o ko on haali ɗum mo kana o soso ana goɗɗo yebbo ɗum toño muñinne mboyo ɗon ɗum ño muñinne ɗum woni ni ko naata telle ɓeɗen min dinakino siko onon hawridina gooro onon ko onene gooro baba gooro nata mulukol ken niñulu mbayi kala nan ɓee ɗo amanke mulukolon nin coɗiroti de ala ɓan caccatiteɓe honɗu ɓe mo bunkol kinoleti enen ko suɗo worulu ɓe bota o eh, eh, jelba sanole baɗa maɓɓe fof ko jelba sanole bud jelba sawo sano wole alfan sano wulu mbo jelba sano on jibini alfan sano o alfan sano wole alfan gansu on alfan sano on jibini alfan gansu o alfan on noon heɓo alfan karamo sansu wawa falisanu wol ya arfan karamo wulu on noon no waɗa jibina arfan karamo wa arfan sanu wol ya arfan alimu wulu arfan sanu on heɓi kalan sanu wa arfan alimu arfan alimu arfan karamo arfan karamo arfan gansu aya woni rom de ken damantan kono ko ɓen tan woni ko lasiri mo pewon tonto damanta telle fanan bonsu muñum fanan ko ɓen ɓeno woni e cukkoɓeɗo tantaalu ɓeɗoɓe ɗuman tantalu damanta yela mum ɓen tolto yiijam gonɗan ton ɗam o yela kino ko ɗan yiijam wonɓe ñol fananto ko ɗum woni ɗo mouhammad mawli makka 15 mbo mouhammad ana makka non tan mbo immatno kata madina mbo yaha madina wallahi wallahi ni alala yamoro mañ si annano allah ko yaɓinno mouhammadou kan mboyo dow mouhammadou kuufla datteji ɗiɗi kafirol ɓe kollo ala le kafiraɓe balaɓe korsono balate bole ko tawata madina kono mo warano ɗum ɗiro danken yamum mbala mboyo mo wonduno waɗe laaɓa golle ba walla ɓe mbaɗa ko mbaɗate mbaɗa koto makka moƴƴi waɗanoro ay tan madina mbaɗa madina mbaɗa yamaro kono noon mbawni ɓe ndiyam yoore ata katta wala kan ko ɗum tan makko mo yaara hani saybol ten moy makko saybol ɗi walla sati o kono motel yimɓe saare ɓe niya ñinin si a landima so waati ke mbo hannamo wattu aɓe deeri mo yewni ama jutila de mbo amma lefa ye jaabi kuma la mo falakama jaabade konngol kumo mum fo kila fo kuma kama bana alaya kono iwlo allah jibrilu tafani nakkunde ɓaya ya jaabita ya jaabita ya jaabita jibril yettinanamo ɗum ɗon ko jaabo yimɓe ɓe walaka ala kuma mumoy ɓe ko ɗum wanno alqouran ko ɗam manne mo alqouran tan mo haalda hadisa saha ɗum ɗon hadisaji yam amme kuma faye mo haalnani hoore makko ɗon yamaro wata o siñiriɗo ɗow ndaman soya yettito allah ɗo kana fitama yettanimama bo ha imari lokkuma kan on tumano ko mbiyinɗa ko ayase jaabi mo jaaboma abetenna abetenna ko mimo way wolɓe mouhamadou bulla ko ɗum wonno kolle mouhamadou mouhamadou o makko ɗon mouhamadou ko manjuri jama ɗum bulla de makko waɗalna naane moƴƴi kewɗi ɗe dulo kiliŋ kokko gooro ay wala ko gon goɗen muta nangue gol ɗum talan talan ta en ɓe coddira nden mamma e ma maɓɓe alfa alimu alfa alimu somanda bimbi aduŋolu ɗi ɓe makko ni benta kan simi kawruye makko somo ndaw somo ley benta yo ɓeɓe ɓe galama salminde ni ɓe benta simi ɓiɓe kawri kara ɗum moya holomoya aɓe o janne on ɗen ɗo kara ɗum oyale aɓe janne gon mbawiye fayalo e ɓeɓe janne simani ɓe kiɓe gari a safo e ko moyaɓe e altabo dampata jamanati abayi ano gadda yimɓe fof ɓeɗi hewde sitabo dampata on jamanati ɓe gadde ake fecceke ha heewa ati dama lani o kan mo wallidiraɓe asaɗum ñin lobulu mokka oɗo kilinta mo ɓaga gooro asaɗum ñin lobulu mokka waya aɗa fa alimul kañke de a fa ali waɗanno noon jamati o ni makko joma jama o sa fo yete alo mboya joɗoɗa kilo ni oɗa sa fa ñin katiba oye hel o na yamuta ɗon simo nangira jakkat mo hela sa kati mo hela sabna hewani jamati o ni oye mbaɗɗo ko heewi ko sa fa ya kati mboya kalan hel asa muta mbo nyokya asa da ngabba mbo nyokya asa nyi mbo nyokya asa nyonki mbo ngara asa eh, la kumbal mbo na hulu ke basi jele mbo do jara aku ngam salu di Allah mbo ko kiyo mbo mbokk yi ba tey nag euh, yéen a ngi seetaan gàmmu bu Paroumba ni ngeen ko gisee nag représentant wu xalif général bu Damantan fale ca Tambacounda moom moo fi ñëw nag mu ñëwaat nag ci li nga xam moom mooy kolexe bi am diggante El Hadj Bouly Coulibaly ak xalif bu Damantan ba pare nag mu daal di fàttali solo suuf li nga xam nag moom mooy gàmmu bi ma fàttali rek ñoom dañuy màggal li nga xam nag moom mooy juddug yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam

مولاي صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم الخلق بآدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي زاد وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كل من محبة الريم من تلقائك زيمة وأومد البرق في زلمائه lawalina adana mo fana kun du wala akilina mo la mo kun du kilati ya mo mo no mi da mo no mi sa ko si an sanar san yake mu tama la marija kisa dinga amanda wala marija to ga dinga amanda sadin wala kirar mo kan jorna ti wa fulani abi salli ala muhammad sallallahu يالا كلا الوتا نتاب لكم أبا فلان يادي قبل كل علم فيه وأنه البصر وأنه كي كيك الله كله اللهم صل على محمد ولكنك خير لك من الهدى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فغوى كلا يبارك لنا يا فلان صل على محمد ashabul isfaki kiyamu keken mati ashabul isfaki wa khairul wana aine samsun محمد وعلى سيدنا محمد وسلم كلا رافع الحديث صلي على محمد صلي sallallahu alaihi wa sallam waxal jërëjëf Boundaay mu ne sa bopp ji laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah moo tax ɗum noona koye harjere bunna yeeru kongon ima kongone ñaadine ibida kirare kam ala fo salli ala muhammad ci ëllëg si nag daal nañu amal cérémonie officielle bi ci teewaayu autorité yi ci gox bi ak ñi nga xam ne ñëpp ay kilifa diine yu mag yu jóge fu ne cérémonie bi nag daal di jeexe أي اللهم بلغ ما بلغ سواء ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وللوعي أبائه وأمواته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وللوعي أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والواهي جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم الحمد لله رب العالمين